leen tooñ bu as àddina bi yëpp a ay Rwanda yeneen dëkk yi ñëpp Nun ngi avancé ñun lañ doon dund 1960 ba léegi dund ay tapet yu tok seen biro bureau nan nañ leen dóor nañ leen dóor ñoo yor alkaati bi nañ leen dóor kañ lay jeex ñun lu doo war a kon ne même su suñu tooñoon sax waruñ ñoo def lii su fekkoon ni ñoo leen tooñ sax waruñ ñoo def lii surtout que ñoom ñoo tooñ yoon leen day am benn caas nekk ci ginnaawam caas bi di duul ne di créer ay histoire ñëpp xam ne day duul amul benn Sénégalais bu gëm kooku di ndax lan parce que yaa lan parce que yaa des fois yi nekk ginnaaw ci ginnaaw di tirer les ficelles pour jëmale affaire bi fi ku wax ay droit nga jàpp dóor tëj kii nga nangu kii nga tëj ay eh, foog loolu bro foog loolu bro warul am duñ ko nangu dee na ñëpp ñu lii mooy la jeunesse. lii mooy la jeunesse il bi bokkul ak bi ngeen daan noot bi ngeen daan ak bii bokk.